dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi ñu xëy xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu xëy ci réewum Sénégal te déggu fi ay scandale lu jafe la mbirum faux billets tàbbiwaat na ci nopp askanu Sénégal ginnaaw bi gendarmerie tege loxo ay faux yoo xam ne bi ñu ko nattee xayma ko toll na ci deux mille milliards journal bi mu ñu xamal naan ñu ñañu sa teg loxo maanaam ca enquête ba dañoo wax ne tudd nañ ci Pape Diop tudd nañ ci Farba Senghor yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu ñaar ñooñe nag niki démb maanaam dañoo xëy di gontu di weddi ci taskatu xabaar la ñu xamle nee nañu li ñu leen di tudd amul lenn loo xamante ni maanaam laale nañ ko ci mbir moomee Pape Diop la mu xamal waa Dakar Actu nee mi da ko naqari metti na ko waaye nag lépp lu mu mën daal ngir nag ragg ab maanaam dina ko def journal bi du l'Observateur ñu fekk fa Farba Senghora la mu xamle nag na mbirum faux billets yi nga xam ne moom lañ koy tudd amul lenn loo xam xamante ni maanaam laale na ca Pape Diop moom ci réew mi quotidien nee na pare na jamono ji bu ko waa gendarmerie wooloo ngir mu dem indi ay leeral ci mbir mi yéen a gi mu ñu xamal la ñu la sa jota leer mooy juróom juróom-benn yi nga xam ne teg nañu leen loxo maanaam ca wàllu woowu yóbbu nañu leen sa kaso ba enquête yéen a kaay mu ñu xamal naan ñu en tout cas faux yi nga xamante ni moom la ñuy wax ne mooy jàbbaajo ngi ci réewum Sénégal buñ si waxul bu buñ ci jógul loole mën naa yàq réew mi mën naa daane maanaam économie réew telu lu jara wax la yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xibaar naan ñu mu Mamadou baajo kamara mi nga xam ne moo jiite woon cour suprême daan nay dem retraite ay atam toll na si juróom-benn fukkaat ak juróom-ñett yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay yëngal conseil magistrature bi ni ki démb am na ay coppite yu bare yoo xam ne maanaam daan na ci am Cheikh Tidiane Koulibaly di frère ci Latif Koulibaly jamono ji moo nekk premier président Cour suprême yéen a kaay gi de la témoin mu ñu xamal naa ñu Macky Sall daan nay freiné mi nga xam ne moo jiite woon cour d'appel bu Ndakaaru jamono ji daan nañ koy jël yóbbu ko fi nga xam ne mooy ca palais présidentiel Ali Siré Ba jamono ji moo nekk ci cour d'appel bu Ndakaaru Mamadou Mansour Mbaye moo nekk procureur général bu cour d'appel yéen naa ñu moom jamono ji yóbbu nañ ko ci tribunal du commerce Henri Grégoire Diop ñu yóbbu ko ca ministère des affaires étrangères yéen kaay gi xëy ci ana lan moo waral coppite yu rëy yi nga xamante ni def nañu ko ci magistrature bi yéen kaay gi du l'observateur xëy wax ci mbirum coronavirus ak test yi nga xam ne maanaam ñoo ngi ko ci def journal bi nee na ba ñu ko commencé ak léegi Sénégal def na ci lu toll si ñaar ci ay milliards ndax test bu ñu def maanaam cinquante mille francs la fukki junni la yéen kaay gi di mi quotidien mu ñu xamal la ñu Aly Ngouille Ndiaye réew mi moom nag nag dafa yëkkati woon ay xibaar wax ne pare na ngir joxe autorisation ku bëgg korite ji dem korite ji ku bëgg bàyyi dem bàyyi waaye nag loolee moom Aliou Ngouille Ndiaye deltu na sa ginnaaw démb bu daan nay génne ak communiqué journal bii di réew mi quotidien xëy di ñu ko jàngal nee na la nga xam ne moo nekk ci communiqué ba Aliou Ngouille Ndiaye bi mu jokkoo ak waa Kër Docteur maanaam la ñu ko wax mooy Ndakaaru ak Thiès ca Mbuur foofee maanaam jàngoro ji ma nga fay jàbba jonge bu ñu mënee moytu di fa déplacé wu di fa dem maanaam moo gën loolee moo tax Aliou Ngouille Ndiaye no autorisation yi nga xam ne maanaam doon ñu ko joxe teg nañu ko ci suuf ba jëmmi jamono yéen a kaay gi de laas mu ñu xamal ñu am na benn waay boo xam ne fan yi ñu génn doon ngeen dégg ñu ne dafa faatu ci Touba ñuy tuumaal benn rakam ne moo ko dugal ci ab foos rakam ma mu du la tudd bi ñu ko waxee ne ko yow mii la ñuy tuumal na yaa sama dugal ko ci ab foos mbir mi metti ko ñu jël ko gardaa à ko maanaam mu mujj daanu crise mujj ñàkk bakkanam laas yéen a kaay nee na ak njabootam nag commissaire Bachir Sarr la ñu say tuumala yéen a kaay gi de Les Échos mu ñu xamal ñu club des investisseurs maa ngi gën a tas Madiambal Diagne ak Khadim Kebe ñoom démissionné nañ ca mbir moomee yéen a kaay gii di record mu ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñooy waa Manchester United ba léegi nii ñoo ngi teg bët Kalidou Koulibaly stade yéen a kaay dikkal ñu ci alam mi nga xamante ni mooy toj football bi ndax nee nañu moo gën a xarañ Messi gën a xarañ Cristiano Ronaldo ndax Chris ak Messi ba ñu am at yi alan am tojuñu ni alan di tojee journal mu ñu xamal lan ñu Cristiano Ronaldo jamono ji daan nay reprendre ay entraînement